Vox TV yi boo xoolee ñu ngi buntu des médias des médias nag bu ñu ko mooy seen TV Zik FM La Tribune ak li ko ëmb ñi ñu taxawal nag Pape Maguette Ba Sénégal a ah mu mel ni ki tey am na loo xam ne ni moo war a xew ci talaata ji war a dox ci diggante Modou Lo ak Ama Baldé mel ni ñoom dañ fi ñëwoon ma fekk leen fii am lu ñu fi doon dox si mais balaa may ñëw ak ñoom si loolu sax dinaa dugg ginnaaw ma leen nuyoo faw ma laaj leen ci li amoon dimanche suñu diggante ki nga xam ne wala seen diggante ñoom ak seen père Gaston Mbengue nuñ ko gisee ak fan la kii daal buur président maa ngi lay nuyu yow la yow laay ubbee waxtaan bi. jërëjëf Babacar Diome ñoo ngi lay fay euh, di nuyu lecteurs yi nga xamante ne ñoom ñooy suivre plateforme bu mag bi di Equivox à travers support yi mu am yëpp ci seen yëngatu ci wàllu sport ci wàllu people politique ak lu mu mën a doon euh, comme li nga wax sànq rek defe naa di diggante père Gaston ak euh, journaliste yi. wala peut-être que les reporters de lutte en ligne euh, dara xaju ci ah dama wax ni incompréhension moo am mais on toujours été des partenaires euh, gis nga événement bi nga xamante ni moom moo amoon dimanche passé ñun ñoo ko promouvoir ñu ñoo nekkoon ci face to yi ñu doon dem jëli mbër yi di xooli seen entraînement wax ci ak fans yi ak amateurs yi donc defe naa loolu ku bëggul sa bés jàkk wala mu baax defe naa ni du du ñu doxalee noonu donc incompréhension am na ci euh, nangu nañ ko taxul aussi ñu jàppal Père Gaston dara yàlla xam na ko tey la suñu diggante gën a rafet ndax suñu papa la suñu papa te loolu Pa Maguette mi xam na ci dara yow xam nga dara man mi euh, xam naa ci dara xëj na mën na tàngal rek mais borom xol bu yaatu la borom xol bu rafet la teewul tamit aussi ñu ngi koy tendre aussi la mais Euh, ñun mënuñu dem ba ko moom mënul dem Bagno ki ni ñu koy tendre aussi la mais noonu lañu koy tàllalee aussi promoteur yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp yëpp képp koo xamante ne que am nga journée euh, bëgg ñu liggéey ci nañu jegante ñu xool lay gën ci yow ci wàllu communication ñu def ko Euh, bu liggéey jotee rek ñu liggéey amul benn problème. am na solo mais tey ki nga xam ne tendre na leen la mais mu mel ni mooy Luc Nicolaï mu mel ni ki tey jàkkaarloo war na am fii ci diggante Modou Lo ak Ama lan moo nekkoon seeni i tànk tey groupe des médias. waaw xam nga Luc c'est pas c'est pas une première euh, man Sénégal la nekkoon bi muy euh, taxawal komba Gris Bordeaux ak Balla Gaye 2 tey Luc bokk na ci ñu njëkk a gëm les sites web na ci ñu njëkk gëm les nouvelles technologies. parce que boo xoolee moo fi njëkk rangu la système perpétuel boobu dañ ñëwoon làmb dee na sponsors yi ñëwatuñu amatul kenn mënatu ci amee dara nangam ak nangam ci xereñam ak xalaatam yu yaatu ci la songee la système perpétuel mais xamoon na ni que aussi mun ko def sans l'appui de Sudweb gis nga ni ci service bi liggéeye jël script jël ci ay bande annonce jël ci ay bannière ànd ak moom liggéey ko kere je me rappelle première face to ba ñu def Mbour. ça a été en direct sur Sénégo donc daw loolu jour boobu pratiquement ci benn télé kon donc tey su xamee apport bi nga xamante ni que site web yi wala la presse en ligne am nañu ko ci li nga xam moom mooy làmb ba teel ñu inclure ci li muy def ndax bi mu amee gis nga boobu ba tey ñu ngi ci ay waxtaan lépp lu ñuy dox ñu ñoo koy doxandoo lépp lu ñuy wax ñun ñoo koy waxandoo loolu nag c'est une haute considération donc considération boobu mu am ci ñun ñun am nañ ko ci moom te incha bëgg nañ ko am ci promoteur yëpp waaye daal lii suñu wax te ñu gëm ko bëgg cee nekk mooy tànd nañu loxo tous les promoteurs nañu ñëw ñu ànd liggéey xam ne dafa am doomi Sénégal yu nekk ci ci bitim réew nga xam ne mënuñu xoolee làmb feneen fu internet donc concurrence suñu ak kenn xeexuñu ak kenn nekkuñu ci conflit ak ku mu mën a doon buñ sañoon lépp luy yokk làmb et puis Babacar la lutte n'a pas de ça fi làmb jógee ak korof torof yi mu jot a jaar saison bii passé ak lu jot am corona bi naa nga mën a am donc li ñu jik moo ñu ànd bokk ndey bokk ba euh, maanaam bokk baay. am na solo Pape Maguette Ba li buur wax euh, yow tamit nga nekk Sénégal di fa liggéey lu am solo waxi buur yi loo ci yokk. waaw li ma njëkk li may njëkk a wax muy euh, muy li nga xam ne moo nekkoon actualité bi li ñu weesu man je diir dire que ne li ma mën a wax mooy àdduna yëpp ba ci tubaab yi ba ci Afrique xam nañ léegi dañu nekk ci air numérique. ère euh, numérique boo xoolee site internet yi ak réseaux sociaux yi dañoo dem à un moment donné dañu domine télé yi mais loolu lu xew la jamono la jamono moo toll foofu jamono moo toll ère numérique xew ñun su ñuy doom sax bu ñu juddoo téléphone la ñuy njëkk a la ñuy njëkk a foowee leen jënd ay doomu tubaab ak ñoom seen ñoom téléphone nga leen jënd wala tablette bu ñu nee ba commencé xàmmee tuuti ay cinquante ans six ans commencé di am ay ordinateur portable c'est tout à fait normal àdduna moo demee ba toll noonu ñun daawuñu foowee loolu ñun ay pistolet foowukaay lañ doon foowee ak ay doomu tubaab ak yooyu noonu léegi nag ère numérique dañoo dem ba nga xamante ni léegi à un moment ñëpp constaté nañ ne site internet dañu dominer le monde carrément mooy monde médiatique bi léegi looy def léegi ci internet nga koy defee ba ci ay transfert d'argent léegi kenn dematul kër kenn di joxe xaalis hmm? amatul ay ay euh, euh, letre lettre yi ñu bind def ko si enveloppe amatul comprendre yooyu amatul léegi ère numérique lañ nekk léegi nit ñi sax dañoo dem ba benn moment boo xam ne ñoo gisante fa ñuy gisante mooy ci whatsapp ba fa la ñuy waxtaanee nee nañu léegi kenn mënatul dem seeti kenn ndax whatsapp yeek ñoom seen ñoom àdduna mooy doxee noonu léegi nag ci côté Gaston ci làmb ji ni mu demee man dama gis ne problème de business la problème de business rek la noonu la bëgg a businessee noonu la gisee dañ ko koy nangul on l'accepte on l'accepte dañ ko koy nangul léegi nag ñun suñu wàll nañ ko def niñ ko war a def mais li may wax rek mooy ñun ñoo daan toog ci suñuy micro si kanamu caméra bi en direct àdduna di ñu dégg ñuy woo Père Gaston ne ko da nga bokk ci làmb làmb tey bu war a suqalikoo sa loxo mu nga ci e dem na ba répondre appel boobu noonu askan bi woote ñun ñuy jàppale askan bi ñun tamit di ko woo parce que xam nañ li muy joué ci làmb ji kon boog ñëw na joué na partition tey presse bi ak les promoteur collaboration rek lañu mës a def man gisuma dara loo xamante ni lu ñaaw moo ci am problème de business la ni mu war a liggéeyee la noonu la war a liggéeye on respecte et puis on passe à autre chose mais di gën a tàllalaat suñuy loxo promoteurs yi même sa bu fekkee ne am na loo xam ne sa dérange mais ñoom am na nu ñu mën a liggéeyee yenn sites yi nga xamante ni xëy nag ñu ngi ci làmb te am na ñu ci nekk ñu xàmmee leen. xàmmee la ñu yàgg ci làmb ji man pour man loolu mën na nekk loo xam ne luy gën a faciliter mbir mi mais tamit d'accord nañ ne site yi bëri na youtubeurs yi bëri na ñuy yor seen téléphone yi di filmer ñoom seen ñoom loolu moo leen déranger mais am na ñoo xam ne tey xam nga ne ñii bu ma leen woowee mën naa liggéey ak ñoom mu nekk benn partenariat loolu c'est tellement simple mais sans site moom ñu dugg ci biir làmb ñun sax ñun ñoo ko njëkk a méttitloo ñoo ko njëkk a méttitloo travers suñu association bi ñu teg association des lutteurs des euh, reporters yi nekk ci site internet yi ci làmb ji taxawal nañ association te ñu ngi ciy liggéey ñun tàllal nañ leen loxo nee nañ nañu ñëw ñu liggéey ci loolu loolu moom c'est tellement facile kon nañ ko xoolaat mu tànn ñi nga xam ne mën nañu liggéey ñoom mais sans site internet mënuñu dugg ci biir làmb jàmbur ñun sax loolu lu ñu gën a déranger la ñun. mu mel ni ba tey euh, bu bu bu ñu romb rombee loolu nga wax noonu Luc Nicolaï tamit ñu gis ne moom daa mel ni site internet yi daf leen a wóolu de trop ci lu muy def loolu noo ko gisee moom tamit. loolu ba tey dafay dellu si ma la waxoon sànq. àdduna am na fu mu toll léegi. dañu nekk si ère numérique noonu la àdduna di doxee noonu la nit ñi di teelee jot information ni day nekk biroom di seetaan làmb nit day nekk biroom di jot information à temps réel le net c'est information à temps réel foo nekk ngay liggéey di nga jot information di nga jot lépp te du la yàqal dara sa liggéey comprendre léegi nag noonu la comprendre xam ne lii dafa bokk ci jamono te ku nekk ci jamono di liggéey da ngay ànd ak jamono yow munoo ne da ngay liggéey si benn entreprise doo yor ordinateur doo ne yow da ngay nekk ci kaw àdduna doo yor téléphone téléphone yi whatsapp ak messenger yooyu noonu forcément boo yoree simple di ci boole boobu ay jamono téléphone simple nit ñi doon utiliser mais léegi téléphone yi léegi sax kenn jëndatul crédit tout se passe euh, sur le net lépp si net bi la mais nag Luc loolu la comprendre c'est un professionnel comprendre na ko foofu ñu koy saluer au passage ci tànn gi nga xam ne tànn na ko ci ñeenti sites yu mu bëgg a liggéeyal ñu ngi koy remercier bokk na ci ñi nga xamante ni ñu ngi jàppale la jeunesse te boo xoolee làmb ji ñi ci nekk di liggéey ay jeunes la ñu comme ni ma doon lancé appel boobu ma doon lancé tey boo leen teree liggéey rek yàq nga emploi yu bëri ay jeunes yu bëri da nga leen yóbbu au chômage kon tey boo ñëwee làmb ji ñoom tam ñu joué si benn partition bokk ci nekk ay acteurs yi gën a promouvoir làmb ñooñu nga tàllale leen loxo liggéey ak ñoom nekk na lu importance win-win lay doon da ngay gagné ñoom dañuy gagné parce que loolu business la mooy li ma doon wax business boobu kee nee la xalaatee business Gaston mais kii nii la xalaatee pour def business da ciy boole ay jeunes yoo xam ñoo nekk ci biir réew mi waaye tamit nekk na ay médias yoo xamante ni information bi mu bëgg mu jàll wala boog promotion bi mu bëgg mën na ko am ci ñii mu ñëw boole leen si loolu ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy rafetlu euh, sagal nañu. ñu ngi koy remercier yàlla na ko yàlla jàppale fi ñu jëm combat bi Ama Baldé Modou Lô yàlla na dàq ci saison yi ñu paase yëpp ba dàq yii di ñëw sax moom la ñuy ñaan te incha allahu rabi ni mu def ba tànn ñu boole ñu ci programme duñ ko décevoir man Babacar euh, Lamine e Bour Guéweul euh, nañ nañ ko ñaanal rek buur nañ ko ñaanal rek euh, moom Luc Nicolaï ak staff bi yëpp Luc Nicolaï en ko incha allah rabi den def liggéey bu am solo. kontaan ci ba tey ñu ngi buntu D-Media rek daje fekk Ibrahima Faye Beuz Beuz defe naa ne bu lig ne ko laay xewle faw ñu gis ko loolu moom du mën a ñàkk mais balaa muy ñëw ci xew boobu li amoon dimanche passé muy làmb joo xam ne ba il faut mu wax ma ci làmb ji ni ñaari ni niñ bëree ndax moom techniquement am na lu mu xam ci làmb Beuz balaa may dugg ak yow ci yeneen détails sax làmb jooju techniquement Eumeu Sène ak Lac de Guiers loo ci mën a jàngat yow. waa Babacar maa ngi lay nuyu di nuyu euh, internautes yëpp yu ñuy seetaan à travers Equivox Euh, dimanche moom wax dëgg yàlla journée bu neexoon la parce que amateurs yi namoon nañu làmb bu baax a baax te dundaat nañu seen passion que mu nekk Sénégal ak diaspora bi nag euh, lenn rek moo xaw a ñuul ci soow li mooy grand combat bi parce que tamit làmb boo xamante ne dañ ko préparé ay weer di ko coow ñu ñëw ñu naan ay ñu ci wax ay waxu gest barrière ak yu mel noonu maanaam ñaari mbër yi <laughs> songante benn yoon ci 40 minutes de combat loolu quand même nekk na déception bu mag a mag ci amateurs yi Mm-hmm. mais yow lan lan moo tax songoo yow pour yow techniquement lu tax songoo wuñu lu tax songo wuñu techniquement man dama jàpp ni Eumeu Sène physiquement euh, dese woon na pare Eumeu Sène dese woon na pare physiquement donc moom dafa téye boppam parce que làmb dafay am moment yoo xam da dangay jekk ak moment yoo xamante ne da ngay da ngay boo jekkee da ngay accélérer sa adversaire am ci nam boo jekkati wee nag. nga gérer sa bës Eumeu seen keroog dafa jekkadi woon physiquement peut-être préparation bi c'est pas sa meilleure préparation du lu mu indi digganteem ak Bombardier du ligi lu mu indi digganteem ak Modou Lo musul indi préparation mu mel ni donc day gérer la de Guiers moom itam euh, ñëw tombe dans le piège de Eumeu Sène tombé dans le piège de Eumeu Sène mooy il a eu une meilleure préparation que Eumeu Sène mais saa yu ñëwee bëgg a euh, songu Eumeu rek ëmma yootu tànk yi ci suuf moom mu xalaataat jël boobu mu bu ko daloon ci diggante ma ëmma ba nga xamante ne ñemewul forcer combat bi te pourtant moo gënoon jekk waaye moom itam géré na ba am ci nam et il a justifié en disant que loxoom dafa doon metti mënul woon dëggal boppam ci xeex bi wala ci yenn yi mais quand même il a pris plus d'initiative que ëmma moo tax mu am nam mais je pense que mënoon euh, am beneen genre ndam budul bii léegi combat bi tamit am na ay loo xam ne am na ci biir muy presse en ligne bi ak Gaston production yow nga nekkoon ci biir nekk ci presse en ligne après ñu tere leen dugg ba mu indi ay quelque jàppal bàyyi loolu noo ko dundee yow mi newoon ci biir. waa man ñëpp xam ne ni yor naa chaîne bu dénk ma xamante ni moom mooy lutte tv point com ma xamante ni yàgg naa ci liggéey lool waaye parallèlement itam yor naa structure boo xamante ne dama ci ànd ak ay sénégalais di ci liggéey muy Buzz Pro muy nekk structure boo xamante ne structure informatique la. boo xamante ne dafay def pay per view tey promoteur bi nga xamante ne moom mooy Gaston Meng ci euh, labelam boobu di Gaston production signé wul ak Lutte TV Buzz Pro la signé pour def pay per view léegi man ci pay per view boobu laa bëgg laa mën a ànd ak moom liggéey. te bi nag mooy dañuy jël événement bi jaay ko à travers la diaspora Sénégal bi yoon dañ ko defoon gratuitement donc loolu laa doon liggéey ak promoteur bi nga xamante ne moom mooy Gaston Mbengue te allah ñu liggéey ci liggéey bu collaboration bu sen bu jaar yoon boo xamante ne vraiment euh, man book am naa ci satisfaction bu baax a baax a baax ci keroog li ñu am ci bës boobu. dàqu presse en ligne bi ci bés boobu. waaw du ma ko tuddee dàq xam nga boo ko tuddee dàq pour man. Sénégalais yi ñoo ko jàppee noonu quoi ñoo ko waxee noonu. non no non xam nga loolu il faut ñu remettre en cause affaire c'est-à-dire problème mooy loo moomul da ñaan. am na ñu ñëw sax naan buzz ak yu mel noonu je pense que Gaston leeral na lu bari ci aspect boobu noonu mais loo moomul da nga koy ñaan. wala boog nga ñëw toog mu am terrain d'entente mu am waxtaan je pense que Pape Maguette il a tenu un bon discours déglu naa ko léegi léegi ci sa micro mu ne tey Gaston ñun ay doomam lañu donc nañ ñëw toogandoo ak moom waxtaan ak moom je pense que c'est ça la meilleure solution parce que promoteur bi lu muy def c'est pas un service public ah promoteur bi muy def Babacar yow bu la neexee Equivox tëgg làmbam ne kenn du dugg kenn mu mënu si dara. ñun Lutte TV dem nañ ci ay lamb yoo xamante ne promoteur bi neena na Lutte TV du dugg yow dal na la ba tàyyi dal na yeneen euh, sa yeneen confrère donc promoteur bi tëgg làmbam tey du service publique service privé la moom mooy xool ku ko neex mu accrédité la te loolu du du du duggule ci làmb yàgg na ci làmb léegi nag je pense que réeroo amul ñàkk waxtaan moo am nañ toog autour d'une table waxtaanee ko dem tey ngeen xam ni Gaston ñu ñëpp xam ni suñu papa la suñu maam la dem toog ak moom waxtaan ak moom. ne ko ah peut-être kat presse en ligne bi mun na la offrir lii ci say prochain événement bi mel noonu mais man pour man ça ne sert de se radicaliser par rapport à cela waxtaan la bu juboo rek promoteur bi moom événement am mooy xool nu ko neex mu organiser noonu événement am waaw am na solo léegi Luc Nicolaï jëm ci événement bu mag ñu gis ne moom tamit dafa mel ni ku xaw a jox presse en ligne boobu benn cër wala benn gëdd euh, tey ci face boo xam ne war na am ci diggante am ak Modou Lo waaw non Luc Nicolaï euh, promoteur yëpp mun naa ne c'est la même chose promoteurs yëpp lu ñuy def dañ ci associé presse en ligne bi même Gaston production ay euh, face à face am na ci presse en ligne donc il faut pas que ñu xalaat di xaajale genre. non pas xaajale buzz bi xaajale mais xam nga Gaston ku ne xam na ne association bi mas nañoo associé ci li mu li muy def signature yaak lépp ñu ngi ci woon di couvrir lépp mais nag dañ dem ba dernier moment foofu lañ ñu. maanaam foofu la ñu génnee loolu moom lu am la wala wala loolu wala loolu wala wala loolu daa nekkul. non non non non te effectivement Gaston moom moo. loolu tamit am na si droit ah, parce que moom moom ay yëfam parce que lu may wax rek Gaston suñu papa la suñu nijaay la suñu lépp la nit la koo xam dafa am méritu làmb parce que 92 ba tey nga nekk ci làmb di produire di jox ay avance defe naa am na mérite mais tamit maanaam ñun ak moom. partenariat bi yaakaar naa ne yàgg na am ñu di si jàpp bi mu dellusee ci face à face yi bi muy taxawal combat bi ba fii mu toll nii tey mais ne dernier moment bi la ñu bokkatul loolu moom defe naa ne mooy li am donte nag mar nañu mën a toog ak moom waxtaan ak moom wala. waaw loolu mooy solution man pour man toog waxtaan mooy solution ngeen xam moom lu ko metti moom mu xam yéen lu leen metti ngeen fexe retrouver wul je pense loolu mooy solution bi te man je suis à m'engager par rapport à cela parce que man sama bopp site internet laa yor tey lu nekk sama xol bu ñu ko xaroon xam ni sama yéene mooy ñëpp kontaan tey lu bëri sax loolu lañ may toonee ne ma tu veux satisfaire tout le monde loolu mënta ne ci man sama yéene mën naa ko am mais itam li may bañ rek mooy ñuy xaajale affaire yeeg di ko jaxase yow peut-être boo ko waxul sax am na ñu koy xalaat wala am na ñu koy wax wala am na ñuy def benn genre influence di wax ci nii di wax ci nële donc man pour man loolu amul njëriñ ci làmb làmb nañ toll situation xam nañ ko defar ci aspect yëpp nag nañ ko defar ñu fexe làmb ji jëm ci kanam ñëpp mun a am collaboration boo xam ñëpp ciy gis seen bopp man pour man loolu moom moo baax ci làmb jamono ji Luc Nicolaï loo ciy tëjee si moom. waa waaw Luc Nicolaï tey moom moo ñu fi woo ah waaw donc euh, tey nga xamante ni am na face à diggante Modou Lo ak Ama Balde premier face à face donc Luc Nicolaï nar ko organiser ku ne xam na ni Buzz pour aussi day collaboré ak ko Nicolaï ci ay événement moom lañ njëkk àndal defandoo pay per view donc tey itam face à face bi ñu war ko jàllale en direct ci internet bi ci suñu ay site internet yéen itam yaakaar naa ni ngeen war a bokk ci ñuy relayer ñuy relayer direct boobu noonu donc loolu du lu yokk làmb la rek lii daal sant yàlla li amateurs yi rek ñoo ciy gañe amateurs yi ni ñu ci gagné mooy tey làmb jaa ngi doxaat face à yaa ngi am combat yaa ngi am donc c'est bénéfique pour tout le monde alhamdulilah waaw. liggéeyu Equivox noo ko gisee. non liggéeyu Equivox xam nga moom laa tooñ sekk di ko ko wax ma ne ko xam nga Babacar nag cuu la ci bulet bi xaw ma nu ñu koy waxatee bulet la xaw ma ci cuu bi nan nan la ko gars yi di waxee. ah Babacar waaw waaw am bulet bu am la xam mais Babacar nag taalibe la rek buy taqale. waa macha allah xam nga tey Babacar ce n'est pas n'importe qui dans le monde de la lutte quoi qu'on puisse dire tey am nga benn euh, liggéey boo xamante ne jot nga ko liggéey ci làmb Euh, depuis le début danga ñëw marqué sa empreinte ñëw indi sa style bu la neexoon nga ñëw di toppandoo ah ñëw toppandoo parce que fii reporter yu bëri gis ne naa toppandoo mooy am mais yow da nga ñëw indi sa propre style indi sa propre façon de faire ba pare wane amour du travail parce que nit ki tamit li ngay def boo ko bëggee da ciy am solo waaw donc Babacar nekk na nit koo xamante ne bëgg na lu muy def te mu ngi koy wane ah ci terrain bi mu ngi koy wane ci budul terrain bi sax fu mu nekk rek làmb lay waxtaanee. waaw donc loolu euh, c'est normal que Equivox bu amee ku mel ni Babacar ak ñu ci ginnaaw ñëpp ku lim juum ah ku mel ni yàgg rek moom dinaa ko lim macha allah parce que euh, xalaat yi am na solo donc euh, ku am équipe boobu macha allah liggéey bi mënul def lu dul nekk liggéey bu mucc ay ba pare rax ci dolli ngeen ñuy féliciter ñoom Alioune Badara Diouf ak yooyu yëpp. waa Vox Arena parce que tamit ñi ngeen ngi yokk làmb yokk làmb weesuwul tëgg franc ak Tyson 2. Mama Lamine ak Garga 2 loolu yokk làmb weesu ko xaw ma yan combat moo neexul waaye yéen kenn du ci boole seen combat yi waaw. Ah, maanaam parce que man def naa benn live di jël amateur yi mais amateurs yëpp à l'unanimité dañ doon lim ne Franc ak Tyson 2 moo dàq ci combat yi Garga 2 ak Mama Lamine moo dàq ci combat yi léegi lépp dépend ci ni ngeen koy liggéeyee ni koy liggéeyee man waxuma la yow rek mais est-ce que Vox Arena dina def lu ci war bu ci defee lu ci war incha allah amateur yi seen dina sedd. mel ni liggéey mu collaboré ak ñun. non mais déjà le cas man am na benn chèque buy nelaw ci compte Lutte TV sax ah. Ah, yi seet si nañ ma waxtaan nañ man seet naa leen tamit waxtaan nañu donc tamit esprit boobu ñu koy rafetlu am na tey benn collaboration boo xamante ne am na entre Lutte TV ak euh, Equivox pour tey ji promotion wu événement bi ngeen jëm loolu tamit day bokk ci yaatal bu leen neexoon ngeen am seen site internet yemale lépp ci yéen waaw donc mu ngi noonu sant yàlla rek. Thank you.